ah asalaamaaleykum àdduna bi yëpp oustaz Ahmed Diop mbëkk moo leen di nuyu borom yàlla yi kese barke bi yombal xiyaamal ak kabar <laughs> ni ngeen def gars yi tey lu mu métti ñu taxaw seetlu tuuti rek man daam fu ma nekkoon gars yi sañse am ki ci waa xojowaa yoo xam daa sañse kaw ba suuf ñii naa ko lalal naa la waa ji daa toog nees tuut am luy xeeñ ñi naan medd mi la ñi naan nag wen rey bërki dem guti dee xeeñ ndekete waa ji lim sañse kaw ba suuf nice mais caleçon bi mooy xeeñ waa man ku ma ku ma tegal ma waat ni waa ji bu mu gëjee fóot caleçon bi ba kii man xaamal ak man na ñeenti weer wala ñeenti at. kiris koros ka ay waay li lay rusul ak mbokk bàyyi leen kiris koros ndekete waa ji li ñuy wax yëpp mooy xeeñle kiris koros mbabal moo xam ne ba nga ko gëjee foot yàgg na si birit mi góor day takk tubéy ba jamonoy neex dëgg góor da daan takk tubéy yow ko bam ñu ngodd boo su sa ba bam ñu ngodd sax jibi daraami gi bu jógee barke bi yow mal xaama lakk bar kenn doo xam ne jóg mais léegi góor yi danoo yoram dañ ciy gis góor goo xam bu jógalee nestuté ñu xam ni sump